ñuy dalal tey euh, kii di euh, ki jiite collectif des cordonniers maroquiniers du Sénégal di Assane Mbaw sëñ bi Mbaw ñu lay nuyu. waaw Elisabeth maa ngi lay nuyu encore une fois la jaajëfal. Mhm. waxtaan wi ñu koy am euh, gannaaw ba njiitu réew mi yëkkatee ay kàddu bëggaat nag tey suqalaat li nga xam ne moom mooy secteur artisanat nan ngeen jàngatee kàddu yooyu leen. waa li ñu koy jàngate mooy d' abord ñu ngi remercier njiitu réew mi son excellence le président de la république par rapport ak déclaration bi mu jëlaat mm-hmm. di wax ne dañu koy xaar dañu koy xaar ñu ngi koy xaar parce que Sénégal tey artisanat foo làmb dafay métti mm-hmm. euh, secteur la boo xamante ne nii bari na mm-hmm. mais xam nañu ne lu bari mi ngi ko ciy def loo xamante ni ñu ngi ci teg suñu bët suñu jëlee déjà le programme PEJA nekk na programme boo xamante ne nii euh, actuellement ñun ñu ngi ciy bi mais xam nañu ne programme la Euh, soxli ci réew mi bari na. Mhm. Euh, li ñuy xaar rek mooy li nga xamante mooy filière cuir éco nekk na loo xamante ne c'est un manque à gagner. Mhm. ci biir dëkk bi parce que Sénégal kenn du wax ne ay der amu fi. Mhm. mais bu ñu xoolee li ñuy exporté di ko jël di ko indi à muy dugaat ci biir réew mi je pense que mën nañ ko mën a utili mën nañ ko liggéey fii. waa réew mi di ko utiliser. parce que usines yu bari tey boo xoolee tey tëj nañu te usines yooyu duñ def sax produit fini ci wàllu der parce que yu ci bari la ñuy def. ay rek bulu la ñuy def te tey ji doxatuñu doxatul parce que tey Covid bi tax na tey mu ñoo génne benn der. Mhm. jëmee ko à mhm. mais daal ñi ngi wax ne daal lépp lu jëm ci wàllu filière cuir et peau Sénégalais yi ñu ngi ciy xaar vraiment ñu jàppale leen ci euh, der accompagner leen ci ba ñu mën a liggéey à l'industriel parce que liggéey bi du toog rek di liggéey ay cent paires daal wala ngay liggéey ay cinquante sacs loolu c'est insignifiant mais suñu amul ay der amuñu équipement boo xamante ni mën leen accompagner ñu liggéey des milliers dafay jafe ci surtout nag der yi nga xamante moo jëlee à l'étranger parce que tey da nga am benn benn couleur boo xamante ne nii soo ko importé mu ñëw ñëw ci ay conteneur boo ko bëggaatee doo ko am yooyu yëpp nag ça pose problème moo tax ñu ngi wax à son excellence du chef de l'État di lancer aussi au ministre Pape Amadou Ndiaye yore artisanat di ko wax ne ko ñu fexe ba tey der yi ñu mën ko tane fii au niveau du Sénégal non seulement dina créer de l'emploi parce que ñi ciy liggéey ci bénéficier wu mais Sénégal yi nga xamante aussi ñoo ciy liggéey dinañ ci gën a bénéficier wu dinañ am ay centrale d'achat ñu mën a jënd der di ko liggéey fii au niveau du Sénégal. tey ndax jàppale euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi ci financement euh, euh, ba ba ba ñu mën a ñoom it jàpp ci dara ndax dafa wane ne dina tax ba nit ñi gën a ñeme secteur bi. waaw mais xam nga ñoom ñoom ma dama ne secteur bi secteur la boo xamante ne ni kenn xam ne c'est à grenier tey y a des hommes d'affaires qui veulent bëgg nañu investir ci biir. ci secteur bi. ci mais mais buñ ci investir aussi buñ ci demee seen jëmu bopp parce que loo xamul mënuloo koo def il faut que ñu waxtaan ak acteurs yi. Mhm. parce que tey boo jëlee tey ude yi nekk tey Ngaay yi nekk à la Médina Touba Diourbel ainsi de suite à Louga tey jii boo leen xoolee tey liggéey bi ñuy liggéey da ci am ñeewante. Mhm. parce que liggéeyi en réalité. tey di ci bëri tey dañu di seen liggéey dem à l'immigration bu ñu demee tey dañuy perdre la main parce que duñ fa fekk ñu mën a donc loolu aussi ñi ciy wax ne DER nañ ci accompagner accompagnement bi nag du nekk ay ay cinq cent mille francs li ñu soxla mooy dañuy soxla et puis bu ñu basé wu ci ay xale te liggéey bi ay mag a koy def mag ñi duñ def à la retraite parce que tey toogaguñ situation bu leen permettre ñu def à la retraite donc nañ ci associé mag ñi jox leen ay financement yoo xamante ne nii yu yu tax ñuy wax la euh, ci wàllu équipement parce que euh, xaalis bi c'est bien beau mais boo amee équipement am ay espace ay centre yoo xamante ni dañ fa mën centre euh, commercial yooyu dina mën a tax artisan yi liggéey liggéey boo xamante ne vraiment du ñu amati problème ci yenn euh, problème machines yi surtout machines yi parce que tey Korité gi comme ni ma ko wax mi ngi ñëw. Euh, tabaski gi ci kanam mais boo nee nga ci yenn atelier yu bari amuñ sax machine yu dawee te loolu je pense que ni nekk na loo xamante ni day liggéey parce que benn machine lu war a mat cent personnes yi ci ñawlu yooyu nekk ay manquement kon war nañu mën ci ay machine ba nga ñaw yi ñuy sax mhm. dina gaaw et puis finition yi dina yoo xamante ni finition bi dafay ñu yombalal leen pour ngeen am euh, li nga xam ne mooy financement yi waaye gis nañ ne comme yaa ngi koy tudd muy DER ak it yeneen euh, banque yi nga xam ne dafay jàppale euh, ñii di entrepreneur yi ci mbir yi am na nu ñuy tëree maanaam am nay procédures yi nga xam ne ndax tey jotul ñu former ñu nekk ci secteur artisanat parce que ñu ci bëri dañuy yëngu dans l'informel. xam nga formalisation dafa nekk loo xamante ne nii dafa am solo. parce que mm-hmm. nit ki il faut nga former ko pour mu xam exactement li mu yor nan la koy téye. Hmm. je pense que loolu aussi gis nañu ne euh, DR mi ngi ci. tey daal formation bi du nekk sa formation boo xam ne dafay nekk a longue durée formation trois semaines lay doon te souvent gën a mën donc formation yi ñu soxla tey. Euh, moi je pense que ne tey war nañu mën a am ay Sénégal yoo xamante ne ni dañuy di jël. waaw formation yi comme ni may wax rek xam nga formation souvent ONFP 3FPT euh, dañ Euh, ba léegi dafa des am na si benn centre boo xamante ne nii muy centre CFA centre boobu dina def ay formation mais artisan yi formation yi ñuy soxla dafay nekk ay formation day am une très bonne mm-hmm. parce que tey dëkk bu mel ne Maroc euh, que ni am nañu xam-xam dëkk bu mel ne Éthiopie dëkk bu mel euh, Turquie comme Europe mën nañ fa gën a yóbbu Sénégalais yi jël ñenn ñu leen def une bonne formation bu ñu ñëwee ñi ci des ñu defal leen ay formation yoo am des formations comme formation bu ñu amee formation yi nekk ay formateurs parce que formation yi def fii nekk na loo xamante ni souvent euh, du am suivi. Mhm. parce que il faut mu am suivi parce que daal ak saak su ma ci doon wax rek tey dafa nekk loo xamante ne nii c'est vrai que les Sénégalais a nañ ci mais ba tey des nañ ci parce que xamuñu normes yi. Mhm. parce que tey war nga mën a toog tey ñu yónnee la yenn normes yi nga xam ko ba tey benn commande boo ci euh, livré nit aussi du ci am loo xam ne lu ko naqare lay doon. te mhm. loolu Euh, les chambres de métiers parce que chambre de métiers yi dañu nekk en rade président wax na ci dañu accompagner chambre des métiers yi kenn ku nekk xam ne ni dañu nekk vraiment dans le besoin mmh. heureusement bi ci son excellence di suwaatee jàpp naa ne at mii ñu jëm wala at yi ci tegu chambre des métiers dañ leen gën a joxaat seen i cër gën leen a fulaal gën a gëddaal jox leen vraiment kattan bi nga xamante ni dañ mën a liggéey ñoom ak artisan yi parce que agence yi c'est vrai que ni ñu ngi fi mmh. mais agence yi amuñu euh, waruwaay di liggéey sax artisan yi chambre des yi ñoo war a liggéey directement ak artisan yi. et justement yaa ngi koy wax euh, am nga yaakaar ne euh, dinañu gën a taxawu euh, li nga xam ne moom mooy chambre des métier yi ndax njiitu réew mi gëstu na leen waaye yéen du bi yoon mooy guleet ndax yàgg nañ leen dig ne tey artisan yi mobilier gi nekk ci bureau gouvernement yi yëpp ñoom ñoo koy moom ndax loolu jëfe woon nañ ko. waaw xam nga loolu ba tey njiitu réew mi damay wax ne moom mënul lu wax. léegi nag li nga xamante ne ni aussi ñun am nañ ci warugar mooy bari na ci ay agence yoo xamante ni nii il faut artisan yi di fa gis seen bopp ñu taxawalee barab boo xamante ña fa ne cent pour cent mais bari agence yoo xamante ne boo fa demee doo fekk benn artisan mu toog fa te fi nga nekkul nit ki munoo xam munoo nekk ay jëntam tant que waxula ko je pense que tey di gën a tey la ñuy soxla tey mooy agence yooyu dañ fa dugal les artisans ñu nekk fa mhm. am nañu xam-xam bi su ko defee ñu mën a ànd ñoom accompagner leen mhm. ci li nga xamante ni moom la artisans yi bëgg loolu ñu ngi koy lancé waat euh, son excellence bëgg nañu aussi ay conseillers parce que président xam nañu ci wàllu euh, euh, artisanat suñ benn conseiller boo xamante ni am na ko ñu ngi ko ci lancé un appel parce que mbir mi aussi dafa laaj mu nekk ak ñoo xamante ni xam nañu exactement li nga xamante moom la secrétaire bi dund loolu ñu ko ci lancé un appel parce que loolu su amul ba tey bi mu bëgg pour mu am ko secteur artisanal pour mu am ko du yomb gis nañ ne rek vraiment mi ngi ciy def lu nekk mi ngi ko ciy def euh, mi ngi ci loolu dañ ko koy lu parce que boo xoolee tout dernièrement blouse yi nga xamante ne nii lancé na ko jox ko seen artisan yi artisan yi engagé nañu ko sans pour autant sans jox leen avance artisan yi tey jël nañu blouse yi di ko dagg di ko ñëw te ñu ci bari sans ñu xaalis mais li ko waral rek mooy dañu wane seen jom wane seen bëgg ak gëm gi nga xamante gëm nañu ko secteur bi ba tax na kenn ku ci nekk yaa ngi ciy consacré wu pour que blouse yi ñu livré ko à temps te buñ ko livré aussi président am satisfaction. et juste santal bu baax a baax. justement nan ngeen di def ak concurrence bi. concurrence bi aussi bu dee ci wàllu dàll ak saak il faut que ñu jàppale ñu ci parce que tey gis nañu ne soble si souvent am na fu muy egg pomme de terre bi dañu jël une décision ne nañu arrêté pendant deux mois euh, euh, exportation bi su ko defee ñi mën a nekk fi mën koo jaay loolu aussi bu ñu xoolee fii tey kenn ku xam na tey bu ñu waxoon ne Sénégal bu nekk chaque année dina jënd deux paires de chaussures boo ko évaluer ci dix sept euh, dix sept millions de Sénégalais ça milliards parce que naar yi ñoom la ñoom noonu la ñuy def lu ñu nangu nga jël ay milliers de chaussures di ko dugal seen réew te ñoom ñu mën koo liggéey je pense que Sénégal aussi bu ñu ci loolu tey euh, c'est des milliards te loolu du def lu dul yokk pays bayu euh, bu kon je pense que loolu aussi ñi ngi wax ne bu ñu demee tey ba mën a produire loo xamante ni mën na satisfaire à soixante dix pour cent marché sénégalais su boobaa nag ñu mën a ubbi ñi nga xamante ne dañuy dem di defi euh, importation ñu dem jël seen marchandise bu ko mais tant que loolu amul dañuy gën a marginaliser ñun ñi nga xamante ni nii dañuy liggéey euh, quantité yu ndaw la. Mm-hmm. kon tey seen jafe-jafe yu gën a mag daal bokk na ci li nga xam ne moom mooy jéggaane gi di wuti seen i produits matière première gi nga xam ne fii lañ koy defaree daanaka. waaw ah, mais mais loolu moo am parce que tey ji boo xoolee tey ñun ñi nga xamante ne ñu dem di wuti der ci àll mm-hmm. bu fekkonte ne mën nañ ko am fii tey ñu gën a noppal. parce que der yi ñuy am di ko jëlee ci àll bi en réalité sax mënuloo am premier choix bi. Mhm. parce que tey da nga fay fekk nga fay jënd indi te defe naa ne tey jii bu ñu créé woon tey comme ma ko waxee. Mhm. ay usines eh, je pense que état bi am na ci ay xalaat mais nañ ko taxawal je pense que amatuñ temps bu ñuy perdre parce que gis nañu effort yi muy def kon na ñu jàppale ci loolu te li may wax rek ñu bàyyi xel ñu ci war a àndal mais buñ ko defee seen xelu bopp parce que buñ ko seen xelu bopp aussi. day mujj rek ci neen day mujj dañ ko def àll ko ñi ngi ko war a àndal muy nous les acteurs. d'accord bëgg daal ñu associer leen ci mbir bi buñ leen ci beddi. waaw ndax a nekk ci biir. ñun ñoo nekk ci biir ci ñoo koy jariñoo. Mhm. donc nit ki li aussi boo koy def jëmee ko ci moom. il faut nga ceeg moom pour def ko pour am résultat. bi mhm. nga bëgg ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi. maa ngi leen di jaajëfal bi sonn te it bëgg nañu ko ñu bu baax a baax. d'accord